région élevage la région agricole la région de pêche la ba pare am ay compétences industrielles am ay compétences universitaires et technique kon nag Thiès lépp ngi fi pour que bu ñu ko poussé jàpp ko développé ko Thiès mën na nekk xolu Sénégal en matière d' industrie. kon nag may wax ne damay jël engagement fii ci Thiès ne bu neexee yàlla le 24 mars 2024 bu ngeen ba joxee réew mi dinaa tabax Thiès tabax Thiès tabax. Sénégal